xoolal xoolal ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di fay sama séeri laa toog sama maam la. dañu ñëw sant yàlla rek ndax ñun moom ay taalibe ay jàmm lañ avant tout day nekk ay taalibe lu munti am si àdduna dañuy sant rawatina mbégte mu réy bi ñu am. mooy yàlla suñu borom may ma tout tànk. vraiment ba pare ma toog sama sama maam. sama papa sama nijaay. ñett ci lam si man ne ma koy ñaanal ndax moom moo a ñaan sama ma ma maye. waaw vraiment gis na seen mën naa la célébrité yi fan yi moom ngeen tëggi Daaru Fado gis nag fan yee ngoone may lañ seeti ay ñu ñëw seet si la ban yëg-yëg nga waaw dañuy sant yàlla rek ndax ndax ndax ndax ndax euh, euh, dund célébrité ça n'a rien à voir ak dund bi nga war a dund yow en personne ndax liñ naan personne la la personne waaw ak personnage donc kon deux vues différents la li la ci dimbali nag mooy boo ca génnee rek yow nga xam ne li liggéey la rek dund dëgg bi nag mooy lii rawatina nekk si loo xamante ne tey jii mooy sëy nga xam ne santaane suñu borom la sëy dafa nekk loo xamante ne ci yemut ak dara ci àdduna surtout jigéen sëy dafa am fu mu lay jëlee am fu mu bu baax ndax moom papa la man xarit la nijaay la confident la duñ ko am yërmande nag ku ma jàppale vraiment te ma may wax papa Thierno Ndiaye mi seede la si moor mi taxaw seede la si wallahi lazim man tontu mbir aw ma fayam ndax dafa ma fekk nag am ma jëlee am fu ma indi sama papa taxaw xam na lu may wax ndax moo ma maye ba papa dara gi mi taxaw man dama koy ñaanal rek waaw mais tey moom sama série original laa toogal. mais ñëpp jàpp ni tamit doon célèbre célèbre mu xam la ba pare nga noo nekk saykat nekkul mbir moo xamante ne daa yomb tey loolu soo message boo xamante ne da ñi nga xamante ne ñoom nga message dama naan célébrité. ak ak vie de célébrité vie célébrité lu éphémère la maanaam nekkul lu am ku koy dund jàpp ne ci ay rêve nga nekk lii dëgg mooy sëy vraiment man loolu laa am man loolu laa gëm te ci loolu laay dund mooy sëy damay ku ñaanal la ñaanal ma yàlla bàyyi ma sama borom kër ñu sokkaloon asamaan suuf ba bay bay tànnalante ay béjaaw boo koy ñaanal na bépp jigéen bi nekk ci néegu sëyam ah si boo may xaar da xaar si ay projet yoo xam te ne ay kii si cinéma ndax feccatuma bàyyi naa fecc depuis projet yi gën a soxal mooy projet impro sama ñaan yàlla mu dem ba nekk télé jeex damay ñaan digganteem ak boroom këram yàlla téel ko boppam parce que doonul fay donnuwul ñàkk jom donnuwul ñàkk ngoon donnuwul ñàkk diine donnuwul ku xam ne du sàmm ngarmeem kon loolu lépp bu dajaloo ci moom li lay won preuve bi baayam a ngi nii toog man pa papay kii maamam moo ma yar daan wax man ak njombees rek la daan wax ñii samay rakk lañu ñu ci des ñëpp maa leen jur parce que moom su may mag la woon ñoo daan ànd ñoo bokk dëkk moo ma ngéntee ni ma ngéntee nii mais mbégte mu rëy la am parce que bi ñuy koy maye dañ doon ñaan yàlla ni yàlla nañu dund ba yàlla taabal ci bant yàlla tàbbal ci bant ma fekke ko te maa ñaani woon damay santaat yàlla ndax alalu sëyam sama loxo lañ ko teg maa ko indi du du Jean du Paul maa ko indi jox leen ko maa ñaani sëñ Abdoul Aziz Abo may ma ni ma yow laa dénk ki la doyloo ba dénk la la mu la dénk danga koy sàmmale xale bi yam ci loxo sëy sëy bi dafa sëy si ndax ndeyam bi muy tàbbi ci kër gi tollu ni moom may ñu dañuy liggéey may ñu nii dañuy liggéey ñu ñëw ñu ñëw ci moom mu ñëw di xam ni moom dafa war a seey si xam ni yaayam ji mu doon musul yëkkati si jëwu baayam du goroom du ay frères yi jëkkëram du ay sëram du dëkkandoo du kenn mu mu nàmp loolu nag ñëw incarne ko ci biir sëyam wax na dëgg ma dun mooy baayam wax na dëgg tonton la koy wax papa la koy wax mooy xaritam jigéen jooju sa borom kër mooy sa xarit góor bu ne say soxna mooy sa xarit moom nag jikkoy soxna la yore soxna du ñu benn mën nga jël jabar transformé ko en soxna mais mën nga jël jabar fekk jabar ji nga jël soxna la baax dañu koy nàmp bon dañu koy nàmp moom nag mu nàmp lu baax ba pare xatraayu ci mbaax googu ñu dama koy dund dégg nga ma la wax fii pour yan projet nga am ma ni lu jëmee sama mbiru jëkkër ca kanam ak sit bi mu yore yàlla na dem ba doon télé allahuma amin lañ ciy teg salaatu wasalaam ala rasulillah xale bi yàlla dund. non aw ma lu ma leen di njaax aw ma damay ñaan yàlla yàlla bu saytaane am cër seen diggante xale biñ fi dajale yàlla na doon kilifa ci diine doon kilifa ci réew mi doon kilifa ci àddina bi doon kilifa ci askan wi mu bokk. Jami sama rakk la sama xarit la sama ñeeño la ndax Jami ma koy xam boobu yaakaar naa ni la toll amagul fukki at magam ji di Issa yor ko ba may ko Medoune juuf ñoo ànd xale ba mag ñoo xalandoo ñoo màggandoo ñoo jéegoondoo kon loolu du tey Jami dama kaa yar mu nekk xale bu baax xale bu respecté doomu aadama fu ma fekk taral ma fu ma fekk wax ma lu baax fu ma fekk yëgati ma ba ci kaw fàttewul démb jël ay nitu tayam teg leen ci nitu kaw nitu démbam daa xàmmee nitu démbam ak nitu tayam barke Serigne Touba Mbacké bëgg ma nag ba mu jeex lépp lu ñuy def seen kër gi dañ may woo ba ma ñëw noonu la ma teelee woo na ma am naa doom xam nga sa ngénte des deux semaines nga teel maa woo kon kooku yëg na la yëg fa la mën a yem démb dama doon maye sama doomu mag ku ne xam ne ne damaa sonn ba mënu maa xool waaye jami moo ma jaral déplacement ak dérangement ndax xale bu baax la xale bu yaru la jami munoo taxaw ne kii mooy xaritam kii lay àndal jami foo ko fekk ay magam lay àndal doxul waxul loolu ñëpp a ko seede àdduna bu yëpp a ko seede doxul ba yàqu waxul ba yàqu xale bu am fullaak fayda la am caractère dina kaf dina ree mais fullaak fayda ak personnalité teel a ñëw ci bés bi jàppale ko ci servir beeg lépp ma jàpp ci côté yëpp ndax sama rakk la sama xarit la jaral na ma lu ëpp loolu magam jiiñ Issa Gueye bëgg ko lool jàppale ko lool ba muy nekk artiste nekk ci fecc beeg lépp mu jàpp ko jàpp rek tawoo bàyyi ne ñàpp ci kawam daw ci dara ñu dëkk jaaxalu ko nag demul guddi fàqul tëbul miir suy génn ànd fu mu jëm xam fan la jëm heure bu wàññeeku pare naa maa di ñëw jël naa taxi kon jami gi dañ koy ñaanal rek sëyam bii moo alaaji Medoune Diouf ñu amaat ci ay doom yu baree baree bari te barkeel loolu rek lañ koy ñaanal yàlla mosal leen ci cat ak làmmiñ ak seytaane Medoune Euh, yàlla defaluma ko dara ba jox ma doom di ko xañ ñeneen donc lépp sant yàlla la rek sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. moo tax ma ne leen richesse mooy bu nit ñi di wut alal wutal nit ñi waaw loolu dafa am solo waaw ndax boo juddoo nit ñee lay taxaw. boo dee nit ñi yi taxaw kon nekkal ci nit ñi rek nit ñaa ci biir nit ñi rek waaw ñu gis la tamit nga yor benn soxla la yi nu muy demee tey dañ dëgg boo xamante soo ko mën a la jàmmatu dara te gis nañ koo gis saa su yëppoon mu naan mu avisé ci niveau cinéma Sénégal dëgg dëgg la dëgg la waaw moom de Jami moom jàmbaar la sama soxna la mais jàmbaar la gërëm naa ko lool waaw bu mbax muñkat la ndax sëy ak célébrité moom xam nga yombul waaye muñ rek moom muñ rek moom na gën a làbbari rek laay wax moom yëf yi noonu la moom waaw. xanaa mu yokkaat rek làbbaliwaat yokkaat muñ rek xam nga tey ji euh, ñun ñu suñu métier quatre heures du matin ngay të tëdd si trois heures deux heures nangam nangam. waaw loolu lépp bu koy muñ day yokkaat rek a mu solo. ok ñu bàyyi la nga dem jërëjëf jërëjëf kontaan ci. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay si sama sama rakk la sama xarit la. ndax mën naa ne nit ñi mën ngeen leen mën nga luwe ay chaise ak basse mais nit ñi kenn mën leen luwe. Diamy di nekk bu baax. milieu bi mu nekk nekk milieu bu garaaw. mais mu nekk ci dignement xam ki mu doon xam ki mu bokk. bokk ci waa kër sëñ Abdou Aziz Abo Madiane yi ñu nekk ay mbokk taalibe mais mu nekk nit ku baax ku ma nawloo parce que mënoo nekk ci milieu showbiz bi def lu ko neex mais dafa defaraat toogaayam ba jëkkër ñëw jël ko macha allah kontaan ci fier ci man damay taxaw naan fier fier na sama la parce que du du du lu yomb aussi nga nga nekk ci milieu showbiz euh, bon kenn jëkkalu ci lu ñàkk fayda kenn déglu ci lu ñàkk fayda toujours jàmmi booy wax da nga koy fekk ci lu ñàkk ci lu am fu la kon loolu fiyaatal la ci moom kon di ko ñaanal bis bi yàlla na dund ba sëtam di ko di ay sëtam ay sëtaatam di ko fekkee ñu koy yóbbu màkk mbàkki borom Tuuba nit ku ma nit ku ma fiyaat ci moom la macha allah. ok merci beaucoup